AGT News. tey liñ fas yéene waxtaan yi dafa ñeel wàllum jikko politicien fii ci Sénégal ana nan la ñu mel par rapport ak li nga xam ni moom lañ leen dénk comparé itam ñi nga xam ne ñoo nekk au sommet de l'État ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci opposition bi ñu leen di ñaan ngeen teewlu bi lépp jàngat ba mu jeex yéen itam am ngeen ci seen ab xalaat ñu ngi ngeen defal ñu ko ci commentaire yi Sénégal nekk na réew moo xam ne ba mu amee indépendance am ba tey mi ngi topp di wër indépendance boo deggee ma répété ko ñaari yoon c'est parce que indépendance bi ci tur dong la waaye na nga xam ne ña ngi koy jëfee ak di ko jëflante ak réewum tubaab yi dafa nekk loo xam ne dafay wane di firndeel te di dëggal encore une fois que ne ñun dañoo nekk ci colonialisme ba tey waaye nag lépp dafa am ay nit ñu koy incarné depuis atum ba tey. am nañ ay leader politique yu fi jot a jaar Senghor Mamadou ja ñoom lamin Gueye Abdou Diouf maître Abdoulaye Wade actuellement le président Macky Sall am fi itam ay boroomi xam-xam yu bëree bëri yoo xam ni jot nañ addu ci lu bëri fii ñeel Sénégal comme ku ci mel ni le grand professeur Cheikh Anta Diop waaye itam Kéba mbay référence bi nga xam ni magistrat yi ci Sénégal yépp war nañ koo jël surtout ci jamono ji ñu nekk ak kaawu Ousmane Sonko Adji Sarr bile waay itam ci lu li nga xam ni moom la ñuy woowee indépendance de la justice contexte nga xam ne ba tey Sénégal amaguñu ko li tax ñu def benn historique bu gàtt bi fàttaliwaat ñooñu ñëpp c'est parce que Sénégal boobu ba tey ñi ngi ci benn dam yi ba tey ñi ngi jéem a xool naka la ñuy def ba trouver suñu benn indépendance bu ñuy am ci côté financier waaye itam ci côté politique ak lépp loo xam ne dafa ñeel suñu àpp culture ak suñu ay tradition yu gis fi ne boobu ba tey am na ay leader politique yu bëree bëri yu fi jaar duñ sax delluwaat ci Senghor Mamadou Dia ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ci topp ba ci Abdoulaye Wade dañuy jël rek nguurab Macky Sall opposition bi nga xam ne moom moo fi nekk te dañ ciy tànn kenn muy Ousmane Sonko daal di def benn comparaison par rapport ak rapport bu Cour des comptes bi nga xam ne génn na ak Ousmane Sonko ba mu nekkee ci impôt yi domaine liggéeyee fa ans génn nekk un leader politique différence bi nga xam ne am na ci ñaari camp yi xoolal rapport bu Cour des comptes li mu génnee ñu dégg ci ay nit ñu bëree bëri ñoo xam ne ñu ngi ci biir Mansour Faye Aminata Assom Diatta Zahra Iyam Thiam ki nga xam ni moom moo di Abdoulaye Diouf ñooñu ñëpp ak ñeneen ñoo xam ne li mu ma leen nekk ci ay ñoo xam ne rapport bu Cour des comptes da leen épinglé na ñoom dañoo jël alalu réew mi ñooñee li waral ñu trouver lu ni mel waaye nag que ne ñoom li tax ñu def loolu c'est tout simplement parce que dafa am lu ñu mel njiit buñ la dénkee xam ne dafa jëm ci gi ko moom yow déjà satisfaction bi nga xam ne population bi mi ngi koy laaj nga xam ne ñoo gën a pauvre ci àdduna bi yow ñu dénk la astut gi nga xam ne ñi ngi ko yor nga daal di ko pasar pasaree jël di ko def ci say compte jël di ko luubal ci anam yoo xam ne ay surfacturation ko jaaralee ak luubal goo xam ni kenn xamul fan lañ ko daal di teg lu ni mel nag rapport bu cour des comptes moo ko wax du samay kaddu gisoon nañ fi Ousmane Sonko un leader politique nekkoon fële nga xam ni moo di administration fiscale maanaam nekk ci impôt yu domaine liggéey fa pendant quinze ans génn ci impôt yu domaine nekk koo xam ne référence la nekk koo xam ne amul benn cent franc boo xam ne état du Sénégal mën na ko ko toppee nekk koo xam ne amul benn centimètre carré boo xam ne itam mën nañ ne lii moom moo ko luubal wala bokk moom moo ko jël daal di koy féetale boppam. amut comment Ousmane Sonko a eu à faire quinze ans ci biir impôt yu foo xam ne largement bu ko neexee mu def fa lu ko neex te na ko defee ci anam boo xam ne dara ndax bu fekkente ne moom jël na boppam wéer ko ci état du wala nguurub Sénégal kenn du ko daal di mës wax dara waaye def fa 15 ans amul dara luñ ko mën toppee alors que ministère yi nga xam ne ñu ci bëri topp nañ leen ak DG yi ñoom ñëpp ku ci nekk lañ la dénk muy poste ba nga yor defoo fa sax 5 ans yu mat te jàpp nañ la ci loo xam ne dafa ñeel wàllum surfacturation wàllum luubal xaalisu Sénégal en quelque sorte loolee nag di wane te di dëggal encore une fois que ne différence bi bëri na lool nit nag la nga xam ne ca nga nekkoon di liggéey laata sax domaine def fa 15 ans kenn mësu koo gis mu luubal alalu réew kenn mësu koo gis mu am as goo xam ni jël na ko ci keesu état daal di koy def ci boppam amul ndax bu amoon kat ñun ñëpp xam nañ ko état du Sénégal exploité na ko puisque Ousmane Sonko il parle de complot entre moom ak Adji Sarr audio yi génn fan yi yëpp di koy firndeel dëggal ko wéral ko loolu yëpp di wane encore une fois ni ka nga xam ni moom la waxal nii nekk na koo xam ne peut-être mën nañoo am yaakaar ci cinq ans wala ci dix ans yi nga xam ni moom la nar a diriger nguurub Sénégal ah, loolee la ñuy wër la ñuy seet ndax dañoo am ci Afrique fii ay référence am ko itam ci Sénégal Thomas Sankara Nelson Mandela Lumumba ñooñu ñëpp nekk nañ ay référence yoo xam ne Ousmane Sonko dafa jël ci seen ay jikko waaye nag yeneen référence yi nga xam ne ñoo ñu gën a intéressé gën ñoo soxal mooy ñaar fii ci Sénégal wala sax ñett la ñuy daal di wax ki nga xam ni moo di le père Kéba ki nga xam ne moo di professeur Cheikh Anta Diop ki nga xam ni Mamadou Dia mi nga xam ni fa mu séntu woon Sénégal ak fi mu yeg si tey dafa utal lool. Ousmane Sonko nekk koo xam ne mën nañ ko comparer ak ñett yooyu mën nañ ne ñett ñooñu ñëpp moom dajale na yenn ay jikko ci ñoom ndax ki nga xam ne moo di Mamadou Dia dafa nekkoon un sénégalais pur sang un sénégalais pur et dur nekk itam koo xam ni dafa nekk un panafricaniste bëgg Sénégalam fonk ko amoon ab vision bu rëy rëy rëy bu mu amoon ci wàllum éducation bu mu amoon ci wàllum économie amoon ko itam ci li nga xam ne mooy lépp luy doxal Sénégal te itam di ko yëkkati économiquement politiquement mais aussi de façon diplomatique à tolloo ak bépp réew moo xam ne daa nekk fii ci Afrique loolee Ousmane Sonko mën nañ ne jël na ko ci ki nga xam ni moo di Mamadou Dia bokk na ci ay référence am léeg sax dañ koy gis ci ay live am mu daal di jël ki nga xam ni moo di photo Mamadou Dia daal di koy teg ci ginnaawam keneen ki moo di la professeur Cheikh Anta Diop le panafricaniste ki nga xam ne tey jii Afrique bu siggee mën nañ ne moom moo tax moo tax ñu naan Afrique berceau de l'humanité Cheikh Anta Diop moomee nekk koo xam ne saa su ne da doon prôné li nga xam ni mooy retour aux sources maanaam delluwaat suñu bopp delluwaat ca ka ñu doon delluwaat ca la ñu doon delluwaat ca la nga xam ne moom la ñu moom nul ne peut se développer avec la culture d'un autre daka daan tàmm di ko wax ñun ñii di Sénégal Ousmane ko gis nañ ko dafay prôné la ñuy woowee made in Sénégal maanaam le consommer local consommer local googu moo tax tey jii Chine am doole gi mu am consommer local googu moo tax tey ay Corée ay Taïwan ak yeneen dëkk yi nga xam ne ñu ngi am benn dayoo bi di jug ci kaw a kaw fii ci àdduna bi ñu am fa ñu toll te dara warul ko lu dul dañoo delluwaat ci seen ay source delluwaat ci seen bopp lépp li nga xam ni ñoo ko moom moomal seen bopp ñu daal di ciy delluwaat sukkandiku ci ñu daal di mën a concurrence yeneen ay dëkk yoo xam ni ñoo nekk ci àdduna bi muy si seen côté jàng seen làkk la ñuy jàngee ñun Sénégal dañ na woon la langue française est la langue officielle à titre provisoire depuis 1960 ba tey ñu ngi ci provisoire gi ba tey ñu ngi ci suñu administration di jàngi français école yi français université yi fépp foo mënti dem ñu ngi làkkum français alors que suñu ay langue olof séeréer joola pël et nekk nañ ay langue yoo xam ne yu ñu codifié lañ maanaam làkk yoo xam ne war nañ cee mën a jàngee war nañ cee mën a bindee gis nañ ko sax ci ñu bëree bëri ñoo xam ne moom la ñuy def léegi Ousmane Sonko lu muy bind da koy bind ci wolof balaa mu koy bindaat ci français bëri ci itam ay site internet sax yoo xam ne ñoom noonee la ñuy daal di doxalee di bind ab wolof comme ku ci mel ni suñu naataango ba ca xalaat TV delluwaat ci suñu source googu nga xam ne Cheikh Anta Diop da ko doon prôné koy a defaraat def xam ne dafay laal itam l'Afrique waaye itam gisoon nañ fi ay jamono mu daal di inciter jeunes yi à ce que ñu delluwaat ci tool yi maanaam mbay mi ndax loolu kese moo ñu mën a tax ñu dem ci li nga xam ne moo di autosuffisance alimentaire am souveraineté alimentaire waaye itam am sécurité alimentaire ñett yooyu dañoo ute bu ñu nee autosuffisance alimentaire mooy nga daal di fexe ba bay lu doy am lu doy loo xam ne yow moom ngay daal di dundee benn souverainté alimentaire souveraineté moom foo ko dégg mooy moom sa bopp maanaam li ngay bay ak li ngay consommer mu nekk loo xam ne yow yaa koy tànnal sa bopp kenn du la ko imposer le marché international aussi du la ko imposer waaye li ci gën a am solo mooy sécurité alimentaire tey nga dem a dem a dem ba problème bu amoon sax comme Russie ak Ukraine bi nga xam ne amoon na bañ gis fi président Macky Sall demoon ci Russie di waxtaan ci lu jëm ci wàllum blé bi tey ne am nañ sécurité alimentaire loolu duñu ci fekk day fekk bay nañ fi blé am noo xam ne doxalee nañ ko ba tey jii bépp problème am ci àdduna bi yow da ngay mën a sécuriser sam réew fekk ñi ngi am lu ñu dundee am lu ñu lekk ba keraag yenn jafe-jafe yi ñu ci daal di génn doo fi sax nekk di wax waxi plan de résilience loolee nag mooy la nga xam ne la ñuy woowee sécurité alimentaire te loolu bokk na ci li nga xam ni il foog ñu delluwaat ci suñu ay source ngir daal di koy mën a am delluwaat ci njàngaleem Cheikh Anta Diop te Ousmane Sonko gis nañ ko ci moom beneen bi mooy ki nga xam ni moo di Kéba Mbaye le père Kéba mbay borom éthique et déontologie le père Kéba mbay borom discours inaugural ba nga xam ne ca 2005 ma ngi ko defoon ca université Cheikh Anta Diop de Dakar daal di fay yëkkati ay kàddu yoo xam ne tey jii la gën a am ab njëriñ tey jii lañ ko gën a daal di soxla politiciens yi nga xam ne ñoom ñëpp ñu ngi ci Sénégal war nañ tous les jours di déglu discours bu Kéba Mbaye bi nga xam ne defoon na ko foofee ca amphithéâtre ya nga xam ne ma ngi ci biir université Cheikh Anta ñuy dem di xëy wala ñuy di dem ci débat wala ñuy dem ci fenn foo xam ne bërëbu liggéeyukaay la wala loo xam ne dafay ñoŋal économie wu Sénégal waaye itam doxalin bi nga xam ne état da koy doxalee loolee dañ war di ko déglu bés bu jot moom Kéba Mbaye dafa woote à ce ñu dellu ci éthique moom Kéba Mbaye nekkoon koo xam ne ku respecté boppam la ku joxoon boppam cër la nekkoon itam koo xam ne ku amoon la ak fayda am ngor ak jom am itam la muy jombale boppam nekkoon koo xam ni référence la woon tey jii ñu nekk ci justice bi yëpp war koo jël comme exemple parce que moom du woon président du woon ministre wala DG wala kenn ku ko sañ a ci Sénégal ndax fulla gi nga xam ni moom lañ leen wax léegi ne moom la àndaloon ci li nga xam ni moom lay liggéey waaye li nga xam ne moo coiffé lépp mooy éthique éthique boobu noonu tey moom lañ soxla ci réew mi moom Kéba Mbaye daan taxaw ci kanamu président de la république wax ko dëgg bokkoon ci ñi nga xam ne dañ daan janoo ak le président Abdou Diouf di ko wax lan mooy sa mission première ici au Sénégal doon ko wax ne ko l'état n'appartient à personne mais sinon au peuple qui en délègue les responsabilités non à un maître mais à un serviteur nekk leen mbindaanu sénégalais yi loolu la ñu soxla waaye soxla wuñu sénégalais li nga xam ne moom la ñu xam ne bëri na fi tey ay magistrats yoo xam wax ki nga xam moo di le président de la république alors que Kéba Mbaye il en avait le courage pourquoi parce que dafa indépendant woon dafa gëmoon boppam xam boppam waaye itam am lu muy jombale boppam éthique boobu ak déontologie boobu mën nañ ne gis nañ ko itam ci Ousmane Sonko ndax koo xam ne liggéey nga 15 ci benn bërëb boo xam ne xaalis dafay circuler ay terrain maanaam suuf di fa am en abondance te amul benn centimètre carré bu ñu mën a génne ne yaa ko lubal wala benn un franc boo xam ne mën nañ ne lii alal ju jaarul yoon la nga daal di koy jël loolee kat ko mën na dignité bu nekk ci moom am na lu muy jombale boppam loolu lañ soxla ci suñu am réew loolu lañ soxla ci suñu am Sénégal moo tax ñu ne nañ def bileb comparaison ñi nga xam ne nag lim nañ leen fii nekk nañ ñoo xam ne ay référence lañ nekk nañ ñoo xam ne war nañ jël ci ñoom saa su nekk exemple nekk nañ ñoo xam ni à chaque fois ñuy tànn am jiit war nañ di xool ci ñoom jikko yooyu ba noppi ndax kat Sénégal gi dañoo soxla changement te il temps que changement boobu daal di am dañoo yàgg nekk di traîner ci xam ne ay futilité la waaye nag lépp li koy waral léeg-léeg mooy dañuy topp pour folli folli folli benn président ba fal koo xam ne parfois erreur lay doon te xam nañ ne lool moo ñu dal avec le président Macky Sall ndax tous les Sénégalais ont regretté ndax ñëpp amoon yaakaar ci atum 2012 que ne Sénégal changement bi ñu fi bëgg dina am waaye changement ci côté yëpp économie sociale politique waaye itam ci côté jikko yi Sénégal lépp a yàqu fi ñu toll nii soppeeku kenn xàmmeetul kenn da ngay gis ñoo xam ne mosuñoo addu ci lu jëm ci wàllum politique sax léegi dañ ciy wax tout simplement parce que mbir yee jaxasoo kenn xamul fooy taxaw ba tax na nañu xoolaat bu baax a baax comportement yi nga xam ne war nañ ko am vis-à-vis de d'entre nous ndax kat suñu réew mii ñun ñoo ko mën a defar ñoo ko mën a xool naka la ñuy def ba daal di koy waxtaanee ba lañ ca bëgg ñu daal di koy mën a am fekkente ne dañoo nekk fii ci réewum Sénégal bëgg ne ku nekk dangay def la la neex kon bu boobaa jaxasoo day am réeroo day am te kenn du mën a indi li nga xam ni moo di solution par rapport au problème ngi ñuy jànkonteel saa su nekk fii ci Sénégal li ñu soxla nag ñëpp xam nañ ko mooy la Ousmane Sonko waxoon mooy la système système bi moo am problème système boobu la ñu war a changer système boobu la ñu war a càmbaraat defaraat ko waaye itam dal di koy jubbanti ndax nag ñëpp xam nañ ne mënul xëy xëy xëy rek système boobu yëpp dal di defaruwaat waaye dañ koy nekk di ko jubbanti ndànk-ndànk ndànk-ndànk bala nga xam ni moom lañ ca bëgg ñu daal koy am am li nga xam ni ay modification structurelle yoo xam ne mënul ñàkk ci yenn service yi waaye loolu yëpp li koy coiffé nag mooy ñu teg fa ay nit ñoo xam ne dañoo bëgg seenam réew ñoo xam ne dërëmu Sénégal intéressé wu leen li ñuy am nañ koy ñaqal seen bopp mu nekk lu ñuy jëriñoo waaye itam nekk ñoo xam ne ñuy engagé wu à ce que ñu faire face à toutes les difficultés qu'ils devront rencontrer dans la vie waaye itam partout dans le monde dañoo war a janoo ak dëkk yi nga xam ne ñoo nekk ci àdduna wërgal képp ñi nga xam dañoo war a fexe ba ñoom ñooñu ñu dem a dem a dem bañuy ñee bañ a jël suñu ay richesse di ko dugal ci ay futilité wala di ko dénk ñoo xam ni ëllëg njëriñ gi nga xam ne moom lañ ciy jëlee ñoom day ute ak njëriñ bi nga xam ne ñun sénégalais yi moom lañ ciy daal di am moo tax nag nañu delluwaat ci suñu ay source nañu delluwaat ca la nga xam ne moo di liggéey waaye itam nañ delluwaat ci li nga xam ni mooy éthique ñett yii ñoom moo fi nekk delluwaat ca la moom maanaam delluwaat ci suñu ay sources bien vrai que nag modernisation bi mënuñu koo ñàkk bañ a topp la Senghor waxoon rek la ñuy waxaat mu di enracinement et ouverture waaye nag suñu enracinement na dëgër ba pare balaa ñuy wax waxi ouverture bu ñu jugee ko ci loolu dox ci lu jëm ci wàllum souveraineté maanaam lépp lu ñuy am ñu amal ko suñu bopp lépp lu ñuy moom ñu moomal ko suñu bopp lépp lu ñuy gérer itam ñu gérer ko suñu bopp ñu jugee ci loolu am des leaders politiques forts des yoo xam ne dañoo gëm seen bopp édile bi ñu soxla daal moom en quelque sorte mooy xam ne dañuy mel ni ñoom Cheikh Anta Diop mel ni ñoom Kéba mbay mel ni ñoom Mamadou Dia loolu la ñu soxla loolu yëpp nag bu amee ba pare ñu teg ci li nga xam ne moom la ñu soxla le plus muy jikko yi am jikko yu sell set nekk koo xam ne doo luubal nekk koo xam ne doo sàcc alalu réew mi nekk koo xam ne doo détourné doo indi ay surfacturation di ko def ci alalu Sénégal ngir tout simplement daal di koy dugal say compte nekk itam koo xam ne da ngaa désintéressé wu ci lépp loo xam ni mooy enrichir sa bopp di appauvrir les Sénégalais loolu la ñu soxla te loolu la ñu yittewoo lii lépp buñ ko dajalee gëm nañ ne ñun ñëpp dinañ ànd dem booloo daal di mën a suñu Sénégal waaye lii yëpp bu amee tamit day fekk kenn ku ci nekk ci ñun Sénégalais itam la nga xam ne moom nga warloo nga daal di koy def liggéey liggéey bu jaar yoon gëm ko di xëy heure di wàcc heure nekk ay sénégalais yoo xam ne liggéey kese la ñuy gëm wàññi wax ji ak wàññi toogaayu mbedd yi itam bañ a benn liggéey dem di uti daan suñu doole te sénégalais yu bare bëree bëri ñi ngi ci waaye nag am na ci loo xam ne des na te faw ñu daal di ciy góorgóorlu ndax bés ñu ko defee ñun ñëpp ànd ci ak ñi nga xam ne ñoo ñuy jiite nekk ñu bees tàq ñoo xam ne ñu set la ñuy doon ñu sell la ñuy doon ñu am éthique déontologie bu boobaa gëm nañ ne fañ bëgg a suñu am réew dinañ ko fa daal yeggale dem ci am réew moo xam ne day am set salubrité ñu wàññi di saltel am civisme am patriotisme maanaam suñu am réew ñu fonk ko man mi nga xam ne maay naan sama kafe sax ma bañ di ko sànni ci mbedd mi man mi nga xam ne maa ngi am samay eau usée maanaam ndox yu salte yi jugee ko ci kër yi ma bañ di ko sotti ci mbedd mi waaye nag na fekk ka nga xam ne mooy jiite mu defaral ma assainissement bi jaar yoon ba tax man ma mën a am fu ma ko sotti loolu mooy mbir mi kon nag affaire bi conjugaison entre état du Sénégal la ak population bi ku ci nekk rek da nga warloo ak sa bopp boo ko defee warloo ko ak sénégalais yi ñëpp dañuy mën a am li nga xam ne moo di vivre ensemble bu jaar yoon am réew mi nga xam ne moom la ñu di bëgg waaye nag ñi nga xam ne ñooy ñi xam nañuy xamal ñi xamul ndax bëri na ci ñoo xam ne ñi ngi jëf te xamuñ koo xam ne moo leen di gindi daal di leen teg ci yoon moo tax un leader politique doit souvent communiquer avec sa population dañ war di waxtaan ak société bi mës fi dégg benn discours boo xam ne Ousmane Sonko mi ngi ko teniroon fële leen wax bàyyi leen ne yéen koy moomal seen bopp loolu yëpp dafa bokk ci li nga xam ne day galvaniser ab société bokk ci li nga xam ne dafay yokk njàmbaar ak jom ki nga xam ni moom dafa toogoon yaafuus moom yaakaar ne lépp da war a fekk si alors que mbir mi liggéey la mbir mi ñàkk la am na ci benn mbër moo xam ne loolu da daan wax nit ñi jàppee ko irodi maanaam di reetaan muy ki ñuy woowee guy gi da daan wax naan seul le travail paye te loolu dafa di dëgg liggéeyee fayeeku boo liggéeyul doo am dara liggéey nag ñu koy wax nekkul tout simplement xëy jël sa saak dem liggéey yi wàccaat noonoo maanaam kenn ku ci nekk ca la nga nekk foofu liggéey la muy tailleur bi muy soudeur bi muy dawalkatu bis bi muy ministre bi muy baykat bi muy jàngalekat bi muy képp ku mënti doon ak secteur boo mënti nekk yow moomee ca la ngay liggéey noonu xamal ne yow ab ambassadeur Sénégal nga fa boo fa liggéeyee benn xamal ne tu l'as fait pour tous les Sénégalais te kenn ku ci nekk rek fañ la teg la la xam ne moom nga warloo ak Sénégal boo ko defee buñ ko boolee lépp dajale ko dañuy am benn unité bi nga xam ne moom mooy liggéey bi nga xam ne liggéey bu ñu boole mu nekk benn bu ko defee Sénégal nga xam ne moom lañ ca bëgg ñu daal di koy mën a atteindre kenn ku ci nekk rek xamal ne li ngay liggéey liggéeyloo ko sa bopp mais tu le fais pour le Sénégal waaye itam nañuy waxtaan ak ndaw ñi te na ñuy joxe la bon exemple par rapport aux jeune rafetul ci am réew moo xam ne jeunes yu ci bëri amuñu liggéey rafetul ci réew moo xam ne jeunes yu ci bëri ñi ngi toog xamuñ fan lañ war a jaar daal di mën a tekki dal di mën a teral seen ay wayjuur waaye itam taral seen am réew ndax loolu rek moom lañ bëgg jeunes yooyu di gis ay ministre di gis ay DG di gis ñoo xam ne ay haute autorité lañ di détourner xaalis di jël alalu réew mi di ko dugal ci yoo xam ne kenn xamul lu mu doon ay scandale yoo xam ne kenn mënu koo natable loolu bokk na ci loo xam ni dafay yàq am réew bokk na ci loo xam ne da koy détruire bokk na ci loo xam ne vraiment nekkul ab exemple pour un pays comme le Sénégal ba tax na ñu ngi woo képp ku ci nekk rek ci sénégalais yi à que ñu ànd booloo nekk benn waaye itam ñu xool bu baax a baax li nga xam ne moom moo nekk suñu kanam am nañ benn chance boo xam ne réew yu bari buñ ko amoon tey jii dinañ ko saisir mooy que ne suñu Sénégal gi am na jàmm am na salaam am na ay këru yoo xam ne ñoo fi nekk di réguler population bi waaye itam yàlla defal ñu ay teranga muy ressource du sous-sol yi nga xam ne moom lañ daal am pétrole gaz zircon phosphate or en a plus finir yooyu yëpp nekk fii ci suñu am réew Sénégal mu nekk des ressources naturelles waaye ñu am ci leneen loo xam ne moo ci gën a am solo wax nañ ko léegi muy ressources humaines des jeunes qui sont là très dynamiques bëgg seen am réew qui sont prêts à travailler waaye gisuñu yoon bi ñuy jaar ndax politique yi ñu war ngir ñoom ñu mën cee nekk loolu amu fi kon nag ressources naturelles yooyu ñu am boole ko wax suñu ay ressources humaines nañ ko jël conjuguer ko bu ko defee suñu Sénégal mën a am développement bi nga xam ni moom la ñu daal di soxla itam yàlla may ñu li nga xam ni moo di ay référence fii ci Sénégal ñoo am fi ay Cheikh Ahmadou Bamba am fi ñoom Sidi Hadji Malick Sy am fi ñoom Baye Niass am fi ñi nga xam ne ñoo di ñoom Seydina Limamou Laye ak yeneen kilifa diina yu bëree bëree bëri yoo xam ne ñi ngi fi bàyyi fi seen ay ak seen ay njàngale ñuy tàggat Sénégalais yi ba tax ñu àndax dal àndax tey ànd ak yërmande ànd itam ak li nga xam ne moo di fonk seenam réew ak bëgg ko am fi ñeneen itam ñoo xam ne lim nañ leen léegi di ay référence yoo xam ne bu ñu sukkandikoo ci ñoom rek lépp loo xam ne am a ñoŋal itam dinañ ko daal di ñoŋal nañu ànd booloo nekk benn jéem a na fi ci ay ñaawteef nañ ko daal di a xool naka la ñuy def ba daal na ci a indi ay solution indi ci itam des éléments de réponse pour que sénégalais yi seen xel daal di mën a dal lépp loo xam ne am na ci réew mi te mu nekk loo xam ne jubul nañ ci daal di jóg xool naka lañu ci indee des éléments de solutions ay lépp nag li ko mën a defar mooy ñu daal di xool naka la ñuy tàggataatee jikko yi ndax bu ñu ko amee rek boole ko ak bëgg suñu am réew yaakaar nañ ne suñu Sénégal gi fa mu bëgg a yegg dinañ ko fa yeggalee AGT News